jërë ngeen jëf bokk yi ci réew mi ak yi ci bitim réew ñi jàkkaarloo ñun ñëpp ñoo ngi fii ci barab bu sell alimul xabir di ndaam ñu toog ni ak ci njaboot gi kenn di soxna maam xarit Mbàkke bintu Cheikh Modou Mourtala góor yàlla gis ngeen tey li mu yendoo ñun ci dëkk bi ànd ak ñun ànd ak jeunesse beeg ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ak ndaw ministre de la commerce ñëw fi ànd ak moom mu visite chantier yi nga xamante ni mooy ci wàllu diwlin yéeg gerte geeg lu bari mu ànd ak ñoom wane ni Touba kat la maasallaa dëkku ziar la waaye nag war naa am ndaw yoo xam ne bu buñ fi xëyee ak jéeg yoo xam ne buñ ne bërit wuti luñ def gox yëpp ñu dem fa mu def visite ci marché yi dem marché marché yi ci gox goxaani yëpp dem fa visite leen xool seen i bëgg-bëgg loolu nag tubaarkàlla maasallaa ba président Macky sàll nag xam ngi ni am nañ yaakaar ci moom ndam lu am ci commerce ba ministre bi ànd ak ñun visite ñu doyloo ko moom dénk ko loolu lépp tey nag soxna si ñu toog ak yow nga jàkkaarloog àdduna bi yëpp yëg-yëg boobu nga marqué ñëpp. maa ngi nuyu ñëpp di tàmbalee suñu nuyoo ak suñu ziar ci sang bu tedd bi sëñ Mountakha Bachirou di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi te may ko wér. waaw tey de moom dañu yendoo ay gan ndax ministre di commerce moo fi ñëwoon seet si liggéey bi nga xam ne Rasiaat mi ngi koy def ci dëkk bi àndante kook Euh, waa sonakos muy benn partenariat boo xam ne Rasiaat ak sonakos la muy liggéey bu am solo ak association bi ñuy wax ADOP muy OPS dëkk bi muy liggéey bu am solo ci dëkk bi ndax xam nga yoonu murit dafa yàgg ak gerte bu ñuy wax suñu mag yu baax yi fi nekkoon suñu baay bu baax ba Serigne Touba Serigne Saliou ku ne gis na liggéey bu rëy bi mu def ci filière arachidière bi ak ñeneen ñi ko jiitu woon loolu histoire bu yàgg la ak yoon wi kon tey bu ñu demee ba ren président de la république xalaat ne filière arachidière bi war nañ ci indi ay changement changement yooyu mu démarré ko fii ci tuubaa loolu ñun duñ am duñ def lu di ci am mbégte ak di ko rafetlu tey ñaan yàlla def ci barke comme moom ni mu ko bëggee ne liggéey bu rëy bii daal dama koy tàmbalee ci Touba ngir yàlla defal ma ci barke ba mu mën a daj ci biir réew mi ndax filière bii di gerte day lu am solo ci réew mi ndax filière la boo xam ne lu mat ñetti millions sénégalais jàpp ñeenti millions sénégalais dañ ciy dund boo ko commencé ci baykat yi transporteurs yi OPS yi jënd di jaayaat ñii transformer industrie yi ba ñu ci koy exporté boo ko xoolee loolu mooy filière bi gën a rëy ci biir réew mi depuis 1960 ba léegi benn système moo fi nekkoon président nag comme dafa indi PSE ci xalaatam bu rafet mu ne ci biir PSE bi mu waxoon ci ne bëgg na atteindre Sénégal bay lu ëpp un million de tonnes loolu ren ëpp ah, bay nañ lu ko ëpp parce que ren bay nañ 1 million 400 dara d'arachide ci biir lool nag ki la xalaatee plateforme bu 13 mars ñu signé xaatim wane ne léegi dañoo bëgg bu gerte gi ñoratee ci réew mi artisanat yi jënd ko nal ko jël diw gi jaay ko industriel yi industriel yi raffiné ko jox ko commerçant yi commerçant yi jaay ko ci biir réew mi muy liggéey bu am solo bu rëy boo xam ne ñun jàpp nañ ne loolu lim mën a jural réew mi ci koom-koom dana suqali développement réew mi ndax plus de 200 milliards lañ daan génne di ko importer ci diwlin chaque année kon deux 200 milliards yooyu jàpp nañ ne bu desee ci biir réew mi ay doomi réew mi liggéey ci loolu koom-koom bu ama ama am njariñ la ci biir réew mi. waaw gis raziat mooy regroupement des acteurs du secteur industriel alimentaire de Touba ñu ngi ko créer en 2011 association bi fii lañu ko créer woon ci ndaam. waaw bi ñu demee ba 2015 nag xale yi nga xam ne ñoo ko yoroon. mu ko mel ne Abdourahmane Fall ku mel ne Ousmane Diakhaté sëñ Mbacke loo sëñ Baara bu sëñ Cheikh Daar Rahman Ousmane Diakhaté ñoom Cheikh Mbacke Diouf bi ñu dajaloo waatee ñu ne dañuy créé waat Raziat SA nga xam ne moom ñu ko créé en 2015 ak ku mel ne Alaaji Guèye ñoom ñëpp bi ñu dajaloo xalaat ne association bi baax na waaye nag nañ ci yokk Raziat SA ndax mu mën a am ay activité commercial waaw xam nga njiitu réew mi moom xalaat bi mu am ba euh, déclaré ci île du Saloum nekk dafa bëgg a créer benn plateforme boo xam ne dafay assainir secteur arachidière bi filière bi rek déjà loolu jàppale la parce que ñun daf ñu cee fekk ñu nekk ci di liggéey mu ne li ngeen di liggéey dama leen ciy fekk ma jàppale leen suqali euh, secteur bi loolu rek déjà jàppale la moo tax ñun dañ koy sant di ko gërëm ñun itam lu ñu fas yéene mooy jàppale ko ci li nga xam ne moom la bëgg muy élection yi ñu jëm incha allah dañu jël engagement pour jàppale ko ci parce que xam nañ ne su gañewaatee réew mi dina gën a dëgëral plateforme 13 mars bi Touba day dëkk boo xam ne amul géej industriel bi boobu bariwu fi presque en 2011 bi ñu koy créé boobu ñun ñëw fi njëkk indi machine u segal yi boobu itam bi ñu ko amee am ñeneen ñu ko fi am ay 3 4 personnes lañu woon waaye Touba moom li suñu blaat waxoon rek dëkk la boo xam ne dangay tàmbali waaye Serigne Touba mooy yeggale. ndax association buñ ñu créé en 2011 booba 3 usines 4 usines lañ tey ñu ngi ci 89 industries ci biir Touba ak li ko wër kon loolu xam ku nekk xam na ne liggéey bu Serigne Touba nangu la bu mu dugal loxoom la te yeneen yeneen yeneen yi nga xam ne euh, ay OPS lañ. muy association bi nga xam ne moog Raziat mun nañu wax ne que ay seex lañ muy waa adop ñooñu itam boo xoolee daanaka mën am nañ lu ma 300 dàgg ci biir dëkk bi kon daal li may soññ nit ñi sama mbokku taalibe yi mooy ku ci nekk ci biir Touba gox ba nga nekk danga xam ne fii moom dëkk la boo xam ne lu fi waay tàmbali ci Pastef Serigne Touba moo koy eggale. waaw activité euh, Raziat nal diwlin moo ko tax a jug parce que alimentaire de Touba la ñu wax. industrie agroalimentaire de Touba ñun dañuy nal dëwlin bu ñu nalee dëwlin yi mu génne ràkkal am dëwlin suñu objectif moo doon ñu dem ba am ay industrie raffiné ko jaay ko ci biir réew mi parce que secteur bawal dafa yàgg ci diwu segal boo xoolee suñu maam yi ba léegi jigéen ñi dañ daan segal moo nekkoon principale activité bu réew mi bu bu bawal booba temps dangay gis ma koo xam ne day yor machine u kirijam di kirij ki ci des ñi ci des yor machine yoo xam ne dañuy wañ pour diw gi mën a génn mu nekkoon liggéey yu diis ci jigéen ñi donc ñun bi ñu ñëwee fii nekk ci commune bu Touba en 2009 ci lañ gis liggéey boobu ne moo am ci dëkk bi ci lañ commencé xalaat nan la ñuy def ba teggil jigéen ñi coono boobu ci loolu nag ci lañ nekk di xalaat bañ wan nañu am na ay machine yoo nga xam ne mi ngi jóge Inde ak Chine boo ko amee courant mooy nal diwlin ji loolu moo ñu dugal ci secteur huile bi donc Raziane moom day nal diwlin bu dee waa ado bi ñoom dañuy xolli gerte trier ko jaay kemb gi jël demi eh, eh, sax-sax ji ak demi graine yi jox ko waa Rasiaat ñoom ñu nal ko loolu suñu bëgg-bëgg la mais pour le moment daal li nga xam ne mooy suñu objectif mooy ñuy fexe ba nal gerte gi nga xam ne mooy ñor ci biir réew mi jaay ko industriel yi ñoom ñu raffiné ko ñu jaay ko ci biir réew mi parce que xam nga chaîne de valeur moom kenn mënul ne chaîne de valeur bi dina jafe nga ne chaîne de valeur bi yépp maa koy def surtout lu mel ne filière gerte nga xam ne quantité yi day bari donc dañuy bàyyi ñuy xolli di xolli ñii nal di nal ñi nga xam ne raffiné yi la ñuy def it ñuy rafine donc bu ko defee chaîne de commerçant yiy jaay itam jaay su boobaa chaîne de valeur bi day continuer donc Rasiaat daal objectif am mooy nal dawlin ji jël huile brute bi jaay ko industriel yi jël ràkkal gi jaay ko industrie yi defal aliment de bétail loolu mooy objectif fu Rasiaat yokkul employé Touba actuellement ñu ngi ci 12000 emplois suñu objectif mooy ñu dem ba am 50000 emplois parce que dañu bëgg a liggéey bi moo tax bi ñuy signé plateforme bi am na ñu doon wax naan ma li ngay signé dafa rëy est-ce que xam nga ko mais xam nga boo amee vision bu sori bu ñu la waxee ne la signé lii dangay ngay lu rëy loo xam ne ñëpp dinañ ci xaj ndax mbirum sëñ Touba moom xamul xatal sëñ moom li muy wax rek sama tey ju nekk day gàccaal sama démb. sant waa Raziat yëpp euh, di tàmbale ci cant gi Abdourahmane Fall mi nekkoon président Raziat di sant Ousmane Diakhaté mi nga xam ne actuellement mooy directeur exécutif projet bi nga xam ne. moo dox ci diggante Rasiat ak Sonacos di sant sëñ Mbacke Lo président conseil d'administration bu Rasiat SA sañ Baara Mbacke directeur Rasiat SA di directeur financier projet bii ñu nekk Abdou du mi yor commission transport du Boy mi yor commission euh, chantier yi travaux yi ak Cheikh Mbacke Diouf mi nga xam ne moo yor communication bi ku lim da ngay juum mais maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen wax ne leen lii nga xam ne tey résultat la bu Rasiat wane da ngeen xam ne travail d'une équipe la Rasiat association la association boobu ñoo liggéey tey résultat bi nga xam ne moom la ñu wane ci Touba di sant itam association ADOP bi nga xam ne ñoo ñoom ñoo ànd liggéey bi ndax ñun kat bu ñuy nal ñoom ñoo ñooy xoolil gerte gi ñoo ñu koy triyeel daanaka liggéey bi ci gën a metti waa ADOP ñoo koy def doo ko ñoo jox ko rasiat rasiat nal ko doog ko jaay industriel yi donc nañu xam ne liggéey bi filière la chaîne la chaîne de valeur la ba nga xamante ni le ñi ci aju dafa bari. Mm-hmm. di sant président ADOP Mouhamed Ndiaye. di sant Modou Ndiaye sant mi nga xamante ni de moom moo nekk jëwriñ ji nga xam ne moo yore liggéey bi nga xam ne moo dox diggante ADOP ak euh, Sonacos di sant Elimane Diouf Mamor Dieng moom lañ dénk commission transport bi di sant Mor Dieng waa gaar bu ndaw yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne nii la ñun waa Touba nañ doon benn boole suñuy xol xam ne li am solo tey euh, ëllëg mooy liggéeyal Serigne Touba. donc nañu toog ci dëkk bi liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi créer ko fi ay emploi te bañ cee bëgg dara lu dug ngërëmam ndax ngërëmal Serigne Touba rek moo am solo tey ak ëllëg. ay ay ndaw yu yu seen taxawaay rafet la ci ci dëkk bi mooy waa 28 pro maa ngi rafet lu seen liggéey ak seen taxawaay euh, di leen ñaanal yàlla ngeen dem ba seen liggéey bi ngeen def ci Touba ngeen am seen télévision bopp am seen rajo bopp mu egg fu kawe seen njort di leen digal it na ngeen jàpp ci liggéeyal Serigne liggéeyu sëñ Touba bi ci dëkk bi nangeen ci jàpp lu ngeen mën ci rafetal na ngeen ko def mm-hmm. ndax li ma wax sànq rek fii moom boo ñëwee da ngay yéene tàmbali waaye sëriñ Touba mooy eggale mm-hmm.